asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xam ne ñooy seetaan Dakaractu TV dañuy bëgg saa suñuy jàkkaarloo ak yéen spécial H24 ñu ànd ci ak Aïda Samb xam nañu le 7 juillet dafay pare bés bu mag waaye dañoo xam ne nag Aïda Samb ak jolof jolof yi seen diggante dafa yàgg lool waaye it dafa am solo te Aly Ngouille Ndiaye muy ministre de l'intérieur euh, moom it jolof jolof la ñu doxante ak dig daje ak Aïda Samb dafa mel ni sax nag moom Aïda Samb mi doon xaar mu ngi nii Bamba di daal di egsi fi nga xam ne mooy buntu kër Aly Ngouille Ndiaye di nekk Aïda ñu ngi lay nuyu. maa ngi sañse bi jekk na macha allah yaa ngi pare bés bi de. <laughs> <laughs> ni ma ko doon waxee léegi nga ñëw seet si nag ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ni ma ko waxee léegi sa diggante ak jolof-jolof yi. Mhm. dafa yàgg te dafa dëggu moom it mu nekk jolof-jolof boo xam baay bàyyiwu la benn yoon. Mhm. kon ñu dugg ci biir rek daal di gisee ak moom. maa ngi leen di dalal euh, di euh, kontaan ci ñëw bi ngeen fi ñëw du peut-être suñu rencontre bu njëkk waaye mm. de recevoir naa ko peut-être euh, à deux ou trois reprises ci wàllu liggéeyam ah duma un artiste waaye am na peut-être quand lu ma xam ci lu ma ko mën a recommander conseil ko digal ko comme kuy digal sa doom comme kuy digal sa jarbaat ndax ci lii mu nekk du loo xam ne lii dafa yomb parce que milieu bi boo ci bëggee réussir yàgg ci dafa demander lu bare bare bare donc ci loolu rek lañ ko mën di conseiller donc yalla def ñu waxtante ak mom mu amone yene ne dafa bëgg def ni morom mhm. ah ñu nit de part d'abord suñu fiñu tollu ak aussi liñu bokk ak mom ndax euh, mom peut être ñu bari mbak gi liñ xam ci mom waye japp na ne ciosan la jolof la mhm. ndax sàmba jabar sam mom ku ko xam ku ne xam ko ak jolof Eh, te yaakaar naa ne amul dara lum ci làq gannaaw sëtëb Samba Jaber Samba la nag li maamam mën a revendiquer Jolofaan na ko mën a revendiquer loolu bokk na ci li sabab ah jàppale bi biñ ko biñ ko jàppale bi mu ne nag dafay bëgg a def benn soirée invité ay fansam ay xaritam invité ci waa Jolof ndax yaakaar naa ne eh, woy na leen woy boo xam ne bii peut-être na sax rien que woy boobu aussi waa Jolof delloo ko njukkal ah bu ne daf koy def aussi suñu rôle la ñu jàppale ko ci en tout cas xanaa dañ koy encourager rek eh, elle li ñuy wax l'avenir ci kanamam su góor góorgóorloo dans ce monde qui est très difficile yàlla mën na ko ci ubbi lay bunt euh, loolu rek mooy liñ koy mën a conseiller eh, di wax it nag ci soirée bii muy dem. Euh, na dem ci mbokk yeb dem ci jollof jollof yeb surtout parce que jollof jollof nak da bëgg ku yek donc ak lolé mu mun defal mom bo leen yegutit ñom man la baye bàyyi yef euh lool mo tax mo conseil ko na dem séti leen kenn ku ci nek c'est vrai que fi ak bés bi xatna na nak dem na né bu ci góorgóorlu dina mëna né ne dem waxtaan na ñoom wax leen solo ci bés bi gëm na né ni ma leen xamee boobaa kenn ku nekk dana ji def dana ji def wàll ñun nag danañ woo waa Jolof yëpp dëgg yàlla képp ku ci eh, am jot dem nekk surtout Ndakaaru wala sax ak foo mën na ne mm-hmm. nga ñëw taxaw Aida ci bésam bi